de presse. bisimilee ka doon laajte faali day eh. ngoye ngi boo xëy ren balaa waxati déwén de fara waddi njàk daara waddi njàk lii laas ab exclusivité mondiale waaw waaw journaliste yëpp ñoo ko doon wër maa la ko wax ay dara karaaraa ca dal eh tribune yéene kay bii daal mooy bu njëkk bi Abdoulaye Wade kon jógee Sénégal ba léegi ni la mu daal di nag addu wax waaw ci lu jëm ci wàllum Sénégal gii waaye tamit actualité yi nga xam ne kon daa tàng jër nekk ci réew mi Abdoulaye Wade ci boppam laa lay wax ni seeq na nag ab waxtaan ak envoyé spéciaux yu groupe des médias ca Paris Gueye mooy Cheikh Ndong Mohamed Ngim Baba Diaw ak Ahmed Kana waaw tribune yéen kaay ne ko may ma rek yow ma yeggali may ma ma yeggali Abdoulaye Wade daal wax na lépp Abdoulaye Wade ci doomam ji bi Abdoulaye Wade wax na ci mbirum Aïdara Sylla Abdoulaye Wade dama ne la wax na ci coow li nga xam ne moom la cadre libéraux waa parti waaw nekke laase Abdoulaye Wade wax ne Abdoulaye Wade fàttewul ma ngeen ko dégg laa ci seen jootaay tribune yéen kaay balaa seen jootaay joojee 1 <gasps> exclusivité bi daal di ngeen ko liir nag suba kon ci tribune bi suba laas non dimanche kay waaw heure seen jotaay jooje seen TV mooy baatu record ba maa la ko wax ñépp seen TV la ñu kuy xalam di ca jaayu olof njaaye ko wax réew mi quotidien moom li mu wax lii la mooy ne song bi nga xam ne kon waa APR ñu leen koy song ni le waaw ñoom waa parti démocratique sénégalais day yëkkati nañ nag ab opération opération ba ñu ngi ko dippee Karim Wade moom waaw songu nañ leen de Le Quotidien yéen a kaay ne ñetti ca ñoom la police ba teg loxo i yéen a kaay ma jëmbal jàngi ne moo ni day seen doxu ñaxtu bi waaw préfet ci boppam da leen waxoon ne def leen ko ba pare delluwaat a ginnaaw wax waxeet waaw Fatou si ne préfet bi ci boppam waaw moo jël dogal bi kay nee nañu dox doxum ñaxtu waaye moom moomee kay moo moroonoo waxaat nag maanaam ñi nga xam ne dañu ñaxtu ne leen buur ka terewaat na ko termine yéen a a ñaar ci ay gaayam kon la ñu teg loxo Carmelo Sagna de ñu teg loxo ba léegi ni lée enquête yéen kay ne de bi kay libéré na ko juge bi waaw waaye ëtt wa boppam laa lay wax nii moo ne du génn tribune yéen kay ne dëgg la parquet boppam laa lay wax nii moo ne kon du génn ca kaso ba laas ne Samuel Sarr tey ji lay wuy ji kon juge troisième cabinet ba tribune yéen kay ne ko dàq nañ ko de ndajeem boobee moom Samuel Sarr ak des affaires ak tourisme boo xam ni kon bu gawee lay doon ba ci ay banque ak yeneen ak yeneen waa Doha nee ma Qatar waaw nee na ñu makki boo tëddee nelawal eh sàll ngaari lam tooro lii enquête yéen kay ne ginnaaw nag ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay milliards yi gars yi digee waaw yoon wi des na de yoon wi des na de ma ne la secteur privé bi rek nees koy lijjante tribune yéen kay ne Macky Sall xam nga lan la waxoon waa secteur privé ne ña xam ne tamit maanaam ñoo sës ca Macky daal ko ànd ak moom task force ba waaw lu ñu war a xoolaat la de daam sekk bokkoon ca Macky 2012 si la populaire ne gis nga Macky 2012 googee ah daa mel ni gaalu yonent nooga rek di gayax-gayaxi xeet wu nekk nga ca biir Macky 2012 te man daam sekk nag la ma jàpp daal mooy Macky Sall waajalul boppam bi muy ñëw kon ci kaw nguur déedéet laas moo taxit gis nga parti bi laa lay wax nii ni ki ginnaaw suba ci samedi ji waaw mitingu Mariam Badiane bi ah ndaw yi nga xam ne ñoo bokk ci APR tey ñi ngi menacé ne boo sàgganee kon danañu ko saboté mar titaali tey politique ba politique ba ca Parcelles Assainies gée waaw Mamoudou won ci le populaire sànni ay xeeram de parce que waaye parti socialiste gii nee na Mbaye Ndiaye Moussa Sy ak Demba Dia ñooñu moom waruñoo xëccoo sax mairie ba génnee na leen nee na centrale nucléaire à ordure la mbalit waaw docteur Mame Cheikh Ngom nee na projet bi lu dangereux la waaw waaw xamal naa la benn affaire ay mbirum cancer ak ay cër yoo xam ni da koy soppi usine ba mën na koo indi ca tund maar de taali mbalit mi mbalit moo na ca le soleil yéene kaay ne téeméer ak juróom-ñaar fukki ci ay milliards ngir yorinu mbalit mi di jógee kon ci kër gi waaw Aminata Touré dama ne la premier ministre la mu bëgg daal moo ñu indi kon ay coppite ci comportement ñenn ci askan wi askan wa yeewoo nga xam ne nag ngi leen gi ca Tamba gee ah. askan wa ca boppam laa lay wax ni nelawatuñ ba yandoor de déedéet gisati nañ keneen ginnaaw juróom benn nit ñi nga xam ne dañoo feebar feebaru xel te ñu rey leen gisati nañ keneen kun rey la ilaha illallah yéen kaa gi ne lu tolloog daanaka ñaar fukk ci ay gémi yóbbu nañ leen kon ngir ñu kàttanal nag waa police ba nekk ca gox boobee dem naa ca lamb ja tribune sox ne suba ne Gris Bordeaux ak Tyson de dana am raag laa la wax yéen kaa gi Babacar Mbaye Modou xarañ dellu siwaat na nag ci fukk ak juróom-ñeenti combat yi nga xam ne bëri na ko Modou Lo ne keroog bi ma Balla Gaye daanelee maanaam jouru dafe tamba waaw guddi gi daa mel ni téeméeri guddi <laughs> alaaji na ñu yàlla musal ci defet ndam lu ko waaye jëndee jar na ko man nag ay milliards laa indaale ku bëgg ndam woo ma wala nga jege ma alaaji loo joxoñ ma dagg déggoo